ci lu nga xamante ne moom moo di euh, amnistie loi amnistie bi nga xamante ne jébbal nañ ko assemblée nationale euh, le quotidien nag lu mu wax moom mooy Macky Sall dafa wét ci euh, luwaawam ndaxte député yi seen boor ñu ngi xëccoo taxawu Sénégal ak pure ban bañ nañu PDS ñoom waxuñu dara dañu wax rek lu yeewi askan wi wax rek ñoom loolu la wax journal Les Échos ñëwaat ci loi amnistie bi nga xamante moom moo andi coow li ñu ne dëkk bi daanaka dafa euh, féewaloo euh, député yi nga xamante ne ñoo nekkoon waa PASTEF ñoom euh, ñu ngi dumooyu ñëpp ndaxte ñoom kenn xamul lu ñuy def démb député PASTEF yi dañu wax ñoom du ñu voté dañuy banque seeni yoxoo ñeneen ñi nga xamante ne ñoo di taxawu Sénégal ñoom dañu bañ loi bi Abba bokk ci waa taxawu Sénégal Euh, ne dina euh, député yëpp manko euh, bañ voté li nga xamante ne moom moo di loi bi ci Thierno bokk moom mu ngi ci ŋaññi moom ak Birahim Seck waa PASTEF nee nañu ñoom kenn xamul lu ñu bëgg kenn xamul tamit lan la ñuy def Walf Quotidien ñëwaat aussi tamit ci li nga xamante ne moo di boobu boobule nee na ci waa PASTEF lay wax PASTEF moom ñoom dañu demoon ak li nga xamante ne moo di xadar wante bu ñu xoolee tey jii euh, daanaka ñoom kenn xàmmeetu leen <coughs> kenn xàmmeetu leen ndaxte euh, li nga xamante ni moom moo di ay ñawteef yi fi am ñoom euh, waxuñu ci dara Birahim Seck moom di wax ne mbir mi kenn xamul nu mu nu muy nirool ndaxte nit dafay logique surtout bu nekkee da ngay politique bés bi le jour euh, ne euh, projet de loi amnistie bi waaw wala waxul waaw waxul det di wax ni waa di koy jëmale ci ñi nga xamante ni ñoo di waa Pastef euh, Birame Souleye moom ak ñu mu àndal nee nañu du ñu def dara waa PUR ñoom seen mbir yi leer na nee na ñoom ñoo dañoo contre li xamante ne moo di bi Birahim Seck ba léegi di ci ŋàññi ñi nga xamante ni ñoo di waa Pastef journal tamit jox kàddu ki nga xamante ni moo de professeur Ameth Ndiaye euh, mu ne loi d'amnistie bi baaxul ci lu nga xamante ne moom moo di démocratie Sénégal Sud Quotidien Sud Quotidien tamit ci loi amnistie bi mu ne waa PDS ñoom euh, waa PDS li députés mooy député assemblée nationale yi ñoom euh, ñu ngi janook ci nga xamante ne mooy seen responsabilité Euh, Macky Sall euh, moom moo waral lépp ndaxte moom dafa bëgg dindi li nga xamante ne moo fi bépp ñaawteef bi fi amoon 2021 ba 2024 euh, loolu waa Sud Quotidien ñoo ci ñëwaat L'As Quotidien aussi tamit ñëwaat ci li nga xamante ne moom moo di loi amnistie bi ñu ne vote boo xamante ni xaw na am lu ci lëndëm ndaxte taxawu Sénégal ñoom ñu ngi wax dil diggante APR ak PASTEF PASTEF ñoom Euh, waxuñu dara Nicolas Ndiaye bokk ci coalition benn Bokk Yaakaar euh, moom euh, mu ne loi bi àndu ci ñi nga xamante ne waa ñooy waa PDS ñoom nee nañu bëgguñu voté bu fekkee ni rek waaye Yewwi voté wuñu ñoom duñu voté donc ñoom Yewwi rek la ñuy déglu ñi nga xamante ne ñoo l'observateur ñëwaat tamit ci loi amnistie bi di rappeler ñëpp li fi xewoon ci mars ba léegi ñu ne ay nit yu dee ay nit yoo xamante ne ñàkk nañ seen bakkan ñu bëre euh, moom la ñuy xalaat ak yàq yoo xamante ni ay magasin jàmbur yu ñu toj loolu la l'observateur moom moo ci ñëwaat di wax ne euh, li nga xamante ne lu ñu bëgg a effacer euh, loolu la bu ko bu fekkee kenn comprendre ko di wax ne xalifa sala ak waa PUR ànduñu si ex-Pastef ñoom lu ñuy lu ñu wane dara moo ci leerul Vox Populi aussi tamit ñëwaat ci loi amnistie bi ba léegi ñu ne vote bi tey jii la wante vote bi dafa ànd ak coow lu bëre féewaloo bu bëre ak tamit calcul politique yoo xamante ni euh, kenn xamul lu muy nirool euh, lu tax ndaxte commission bi bi ñu ko defee démb euh, waa taxaw ak waa PUR ñoom dañu wane seen position ne ñoom ànduñu ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa député Pastef na ñoom kenn xamul lu ñu bëgg ndaxte ñoom neutralité la ñu wax maanaam ñoom ñu fenn bu fekkee ni euh, PDS euh, ñoom nee ñu lu yey wax la ñu wax ñoom euh, waxuñu dara Déthié Fall xalifa Sall Aly Ngouille Ndiaye Malick Gakou ñoom nee nañ il faut que député yi ñu voté contre li nga xamante ne moom moo di loi amnistie bi enquête mu ngi ñëwaat ci lu nga reportu élection présidentielle yi nee nañ conseil constitutionnel ñi nga xamante ne ñoo dajaloon dajaloon jam ñaajo ngir waxtaan jàpp daat conseil constitutionnel kayit gi ñu ko jox xotti na ko teg ko ne faalewu leen nee na moom lu mu jëloon décision bi mu jëloon le 15 février décision boobu moom mooy wéy ba léegi loolu enquête moom moo ko fësal ba noppi di Karim Wade euh, bokkul ci élection yi bokkul tey lu bokkul ëllëg lu ñu nangul tey duñ ko euh, nangu suba Euh, ki nga xamante ni ñoo di ñi nga xam ne ñoo di sursa ñëwaat nañ tamit ci votu amnistie bi ba léegi ñu ni député Pastef fii ñoom tamit kenn xamul lu ñuy taxawee seen kenn comprendre leen ndaxte waxuñu waaw waxuñu déet ci li nga xamante ni moo di loi amnistie bi ba léegi journal bi mi ngi ñëwaat ci agression euh, patronne 7TV di Maimouna Ndour fay ñu ne ginnaaw bi nga xamante ni déglu nañ ko Maimouna Ndour Faye mu ngi am tan am jàmm ndaxte euh, démb la jóge euh, hôpital ñibbi këram euh, démb nag enquêteurs yi déglu nañu ko nee na moom dañu ko bëggoon a rey loolu la wax weddi li nga xamante ni moom moo di insécurité bu ñuy wax ne foofu fu mu dëkk loolu moom moo fa am nee na moom dañ ko bëggoon a fàtt loolu la wax ci journalu Source A Euh, journal Le Soleil ñëwaat tamit ci conseil interministériel bi nga xamante ni amoon na euh, premier ministre Amadou Ba doon na ko séq ak ay naataangoom yeneen ministre yi ngir waxtaanee wàllu ndox ak wàllu dëkkuwaay loolu euh, journal bi ci la ñëwaat ñu ne projet yi nga xamante ni seen gouvernement sumb na ko daanaka yu bëre egg na ci fànn gi tamit ñu ngi ciy gis euh, député PDS yi na ñoom tamit lu wax lu waa yooyu wax rek euh, loolu lañu wax ñoom ñu ngi taxaw di leen déglu euh, l'info mu ngi ñëwaat ci li nga xamante ne moom moo di manqué gaz butane bi nga xamante ne dafa manqué ndaxte ñu ngi jublu ci koor gi loolu l'info loolu la wax ci xibaar bu tiis tamit ci libération di ñëwaat ne benn gendarme boo xamante ne ñaar fukki ak juróom la am moom moom moo dóor boppam bal ci boppam maanaam dafa xaru euh, ñu ne Esnam la tuddoon mu ngi nekkoon doon def garde euh, démb nuit dimanche ba lundi euh, la ko def ci arme de service am la utiliser mu ci wax ne balaa muy def loolu nag dafa yónnee message ñi nga xamante ne ñoo di ay jege yàlla ñu ko jege waa famille mu ci wax ne dafa am ay bor yu bëre loolu moom moo tax moom mu dóor boppam balu fetal Euh, daal di rey boppam ci ci journal bi ñu euh, libération ba léegi ñu ngi ciy wax aussi loi d'amnistie bi di wax ni assemblée nationale dafa féewaloo ndax loi bi kenn xamul looy voté waa PDS ñoom ñi nga taxawee ne di seetaan ñi nga xamante ne ñoom ñooy député euh, député Pastef fii ñu jeexale ak stade stade mu ngi ñëwaat ci euh, Ligue des champions huitième de finale euh, retour tey jii lay am euh, ñi nga xamante ne ñooy waa Real Madrid ak Manchester City ñu ne ñoom dañu war a eggale li nga xamante ne moom moo di seen match yi ñu ngi ciy wax tamit ni ci match ci match Real Madrid bi Jude Bellingham moom moom rek la ñëpp di xaar ginnaaw prestation Paris Saint-Germain ak Bayern nga xamante ne ñoom qualifié nañ li nga xamante ne moo di quart de finale démb ci. stade euh, quotidien sportif Aïcha li moo ko gënoon fës ci euh, boppu xibaar yi euh, voilà di la di la delloo kàddu gi waaw léegi-léegi lay doon